di ko sàmm ba mu nekk mag ndax xale yi euh, day laaj ay day laaj ay ñaan daal ndax xale du xam dara chaque jour lu koy gaañ lay def euh, dañ koy tàmbalee nag bis ba mu juddoo euh, jàng nañ ci waxi sëñ Mbàkke Buso nga xam ne ak xam-xamam moom ñëpp nangu nañ ko mu wax ni suratul baladi la aqsimu bi haazal baladi wa anta xillun bi azal baladi wa walidi wa ma walada soo ko bitee ba mu jeex bis ba xale ba juddoo wala fan mu juddoo ñu bind ko takkal ko ko nee na du faatu ci ndawam xale boo ko takkal suñu borom subhaanahu wa mën naa def mu doon xale boo xam ne xale bu xale bu xale bu fi yàgg lay doon day dund. beneen bi ci topp muy falaxi ak naasi loolu moom siiw na borom xam-xam yu bari maase nan maanaam d'accord ci. xale buy nàmp ba ba muy fer falaxi ak naasi bu ci nekk nga bind ko ñetti yoon ñu ngi koy bindee nag muy bu njëkk bi danga koy maas tomb ko beneen bi da koy tomb te doo ko maas beneen bi da nga koy bind rek yax bi doo ko tomb doo nga binde noonu falexe bi bind noonu naasi bi def ko téere takk ko takkal ko xale seytaane du ko mën a lor rab du ko mën a lor mbooleem luy lore du ko mën a lor dara du moom ci moom dara waaw Eh, bi ci topp muy baatu po xayin soo ko bindee ba muy fukki yoon ak baatub xaaf nga bind ko ba muy fukki yoon ak aaya bi wa yasalunaka anil jibaali faxul yansifuha rabbi narsan mu nga ca suurtu taaha aaya 102 ku ko takkal gone insha allahu rabbi dana mucc eh, ba tey gone guddul nelaw guddi nga bëgg muy nelaw te yeewoo jàmm ndax am na ci xale yi ni muy dal mhm. da koy bindal aaya bi allahu yatawafa al anfusa inda mawtiha wallati lam tamut fi manaamiha fa yumsiku lati haade alayha al mawta wa yursilu al uxra ajalil musamman inna fi saalika alayaati li mi yatafakkaroon ma nga ca sootu somar aaya aaya 38 soo bindee aaya ba noppi nga teg ci wala xawla wala quwwata illa billahi aliyil azim nga def ko téere xale boo ko takkal dana nelaw nelaw yu doy te di yeewu ci jàmm xale buy sawlal nga ah, bëgg mu bàyyi am na solo de hmm. xale buy sawlal da ngay wut naanaa ju bari su defee nga baxal ko di ko naan kaas suba ak kaas ngoon naanaa dëgg dëgg lu ci baax la te nit ñi xamuñu ko moo gën a baax ci xale buy sew la ba tey gone gu bari jooy jaaxal yaayam weex lool nañ ko bindal ñetti aaya yi aaya yu gàtt la bu ci nekk dinaa la wax fi mu nekk bu njëkk ba mooy wallahu masakana fi layli wa nahari wa huwa samiul alimun mooy aaya bu njëkk bi ma nga ca suratu anham aaya treize beneen aaya bi mooy afa min haza xaddiisi attaajaboona wa tasnakoona wala tabkoona wala tabkoona wa antum saamidoona mooy ñaareelu aaya bi ma nga ja sóotu nañ mi aaya 57 ñetteelu aaya bi mooy fas judu lihi wahbudu alamtara ila rabbika kayfa madala zil walaw saa la jaalahu sakkinan suma jaxal naa samsa alayhi alayhi dalila ma nga ca sóotu furxaan aaya 44 ñetti aaya yooyu soxna ay sax mm. xale lu mu weex weex boo ko bindee takkal ko ko suñu borom dina ko soppi def ko mu doon ku lewet mhm. te na muy doone ba na muy doone mag maanaam day doon nit ku ñàkk problème day doon nit ku lewet ah, ba tey bu gone dee lekk suuf <laughs> nga bëgg mu bàyyi ko dangay bind eh, lii ci mburu jox ko fexe mu lekk ko mhm. insha allahu rabbi dana ko bàyyi muy fasbir sabran jamilan wasbir nafsaka maa lesi yadduhuuna rabbuhum bil bil xadaawaati wal xasiya yuriduna wajalhu dooga indi nag yaa ayyuha allazina amanu asbiru wa sabiru wa la wa taqullaa la'allakum tuflixoona insha allahu rabbi dana ko bàyyi gone bu dee sax bañ mm. nga bañ mu métti maanaam day daw seen biir tàng seen yaram yi tàng léegi nag ndey ji rek moo yor saafaraam mm. waaw ndey ji na yox wala daaliin wala daaliin wala daaliin ba muy ñetti yoon mu di ko wal ci gémmiñ gi loolu boo ko dee ndey ji bu dee def loolu ci gémmiñu doomam di wax wala daal yi na ñetti yoon di ko ëf ci gémmiñ gi dana sax bañ te moom xale bi sax du ko yëg day jékki-jékki rek gis muy am ay bëj mm. ci baax la da koy faral di def avant muy sax faral di ko def rek mm. ëf ci gémmiñ gi jamono bi muy jafal rek mu di ko def mm. ba tey liit lu baax la ci xale euh, bis ba mu ba buñ koy tudd buñ ko tuddee ba pare maa ngi koy wax sénégalais yi euh, jëla fu wér ni xale buñ ko tuddee ba noppi nga jàng ina anzalnaahu fi laylatul xadri wa ma adraka ma laylatul xadri laylatul xadri xayrun min alfi sahri tanazzalu malaaikatu wa ruuhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun xam guddul soo ko jàngee bi ko tuddee ba pare nga ëf ko ci ñaari nopp yi bu màggee du njaalo hmm? waaw boo ah, ko defee xale ci tudd bi waaw bu fekkee da nga ko bindal suratul suratul xàqatu al mal xàqatu moom it du saaru gudd ba mu doonee xale nga def ko saafara xale bi di ko naan bu màggee dina doon ku yiw mm. dana doon ku lawet mm. dana doon ku ku am kersa dana doon tamit nit ku am wërsëg dana doon nit ku tabee loolu loolu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ko indi mm. ba tey képp koo xam ni dangay ñaanal sa doom xale li gën ci di ko ñaanal mooy waxtu bu xëyee nga def juróom-ñaari yaa barru maanaam sept fois mm. yaa barru yaa barru yaa barru yaa barru ba muy sept fois mm. nga ëf ko ci naqatalam ni ko dénk naa la yàlla naqatal naqatal mooy digg bopp bi ah, ok te muy nooy nooy def noonu boo ko waxee muy juróom nga ëf ko ci naqatal bi ni ko dénk naa la yàlla faw mu mucc mm. te it faaw faw moom faaw mu màgg bu fekkee da ngay ñaanal sa njaboot da ngay wax yaa raqiibu ba muy juróom-ñaari yoon nga ne dénk naa leen yàlla ñoom ñëpp mën ngaa fekk seen njariñ. yaa raqiibu kii ñaanal boppam nag mën na koo def. ya ya yaa raqiibu waaw mën nga koo ñaanal sa bopp. Hmm. bu fekkee tamit xale bi day tiit moo xam ci nelaw la am na xale yu muy daal. dëgg moo xam ci nelaw la moo xam ci lu dul nelaw la. Hmm. nga bëgg mu koy bàyyi. 21 bismillaahi rahmaani rahim soo ko ko takkalee incha allahu rabbi moom day daal di tàq tàqalikoo tiit. macha allah yooyu yëpp daal ñoo ko joxe te yaakaar naa leer na waaye képp koo xam ne rek dese na laa leer wala ngay xaar lu say mbir bëgg nga xam sa tolluwaay gàllankoor yi ak li ngay dund ak li sa kanam dag ñuy woo ci 78 530 69 81. merci beaucoup jërëjëf Fawzeyni ñu jaajëfal la bu baax a baax njàngale ma am na solo Pape tu euh, am na solo si xale yi boo xamante ne. Euh, parce que peut-être soo ko dégguma ko mais peut-être soo ko waxee dina soxal parents yu bëri xale boo xamante ne mënul toog benn place. terrible. Euh, waaw ku terrible koo xamante ne wala muy génn di dem te du tàggoo et amul benn tegtal boo xamante ne. maanaam ban âge la toll. yow li ngay wax ni yan âge la. xale waaw yoo xamante ne. yu ci mel ni surtout bële bi nga waxoon. Hmm. boo ko takkalee xale du du faatu ci ndawam. sëñ Mbàkke bu soo dajee teg ni mën na koo sàmm ba mu am fukki at ak juróom-ñett hmm. léegi bu amee fukki at ak juróom-ñett day dugg mag waaw léegi nag moo tax may laaj xale bu toll mooy 18 ans 18 ah, am 18 ans mais mais mais l'islam loolu la wax ku mag ku mag moom mooy 18 ans waaw maanaam loolu la wax moom mi ngi tàmbalee ci xam nga nit ñi toll tollowuñu am na ñoo xam ne maanaam 13 ans rek buñ ko amee mhm. tàmbalee mesure am ñoo xamante ne mën na noo dem ba am 15 ans mais mais mais sinon 18 ans yi fu muy jógee. 18 ans yi hmm? sa 18 ans yi nga wax fan la jógee sinon. léegi 18 ans yi fi ko sa sëñ sëñ sëñ Mbacke bu sa teg maanaam xale bu amee 18 ans mhm. ñaan gi dooleem mën na koo gunge ba 18 ans. loolu lay mhm. wax. d'accord ci léegi nag bu amee 18 ans nag moom mu tàmbalee wutaat ay ñaan yeneen yoo xamante ne mi ngi dugg mag. ok mais léegi ban ñaan moom mooy question bi ban ñaan moom mooy euh, xale boom bu jot par exemple boo xam mënul toog benn place. waaw xale bi mënut a toog benn place. xale boobu moom bi ci njëkk mooy surtout yaasin yaasin wal quraanil hakimi innaka la minal wax na ni soo ko bindee juróom-ñaari yoon waaw juróom-ñaari yoon xaw naa bari na dangay fay bind bindkat mu bind ko bu ko bindee juróom-ñaari yoon mu mu sangu ci naan ci juróom-ñaari fan suñu borom dina ko def mu doon nit ku dal mm. te it suñu borom dina ko def mu doon nit ku rek la daal mm. doon nit koo xamante ne dootul léejati Mm. am na solo mooy ñaan googu. macha allah jërëjëf ñu jaajëfal la ba mercredi prochain incha allah kii naa merci beaucoup ñu bàyyi la nga tàggatoo mbokk. de rien Aïcha di leen jox di daje bu demain rek incha allah. incha allah assi à demain Aïcha inchallah merci beaucoup Pape. merci à demain inchallah <laughs> Pape <laughs> merci à toi merci à toute l'équipe matinale jaajëfal leen fukki waxtu jotee ñu jox leen seen flash d'information et juste après comme euh, chaque jour rek après flash d'information bi da ngeen di ànd ak Sista Maria et sa team euh, ci